le secret du dépôt, on l'a pas assuré ici. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Donc, ils ne nous ont pas assuré le secret du dépôt. ba nit ñi jot nañ ci ba ñu ngi ciy def ay négociation ci ay groupe yu war a fat ay nit dugal leen ci fii affilié apparenté wu fii wala apparenté wu fee ba ñu ngi xëccoo ay député ndax ñi nee nañ nañ bu ñu dugg ci groupe sàngam dañ leen di may ay poste ñii neen kaay leen ci ñun ngeen may ngeen yokk ñu doole. lii lañ wax nii euh, ñun on n'a ñun yeew yi on a travaillé sur toutes les options et toutes les options nous conviennent li ñu yoon may dañ ciy taxaw li ñu bëgg def nag ñëw ci biir bureau assemblée ci plénière bi yëkkati ay débat wax ni dañuy modifier la constitution bi nga xam te bii moo wuute ak dépôt bi defoon ñun dañuy defar recalcul à partir du moment où des gens yoon mayewu ko mais la bu ngeen seetlu tout de suite. ñun lu ñuy yoon may ci la ñuy yem. fi ñu toll nii li ñu yoon may dañ koy jël on boira danañ ko jël ba ni mu jeexee bu weesoo loolu beneen stratégie bu ñu fi mënti lal wékku wékkuwul ci yoon wékkuwul ci démocratie parlementaire danañ ko xeex ni ñu ko war a xeexee li ci des ma ni bu ñu fekkoon ni ñun dañuy des ci yeew yi nekk 10 députés incha allahu rabbi on calculera avec dignité ma fàttali ne biñ ñuy toroxal fii ci maire bu Dakar déggu leen benn membre bu bu bu bokk ci yeew yi bu jóg wax on est resté digne et cette dignité là on compte la conserver li ñu yoon may dañ koy jël danañ ko doxal li ñu war a xeex danañ ko xeex ci anam bi ñu ko war a xeexe foofu lañ ci yem. est-ce que au sein au sein de Yewwi ci bi yoon leen ci liste bi ma tontu leen mu leer mais loolu c'est la démocratie du groupe c'est le groupe qui décide de manière autonome boole wuñ leen ci pour mu leer léegi nag euh, li ci yoon maye yoon maye na ko règlement intérieur prévoir na ko nañ ci yem ci loolu leneen lu ñu ci def ñun fañ ko war a xeexe danañ ko xeexe li ci des nag moom sénégalais ñooy àtte bu fekkee ne am na ñu ne dañuy nekk candidat waxtaan fii jàppale ma fii sotal ma kii daaneel ma kii kooku sénégalais yi lii di xew ci assemblée tout de suite ak ci kanam tuuti dana ko leeral na sénégalais yi toog xaar asalaamaaleykum wa rahmatulah